Ali amati mbégte ak kontante bu baax a baax a baax jàkkaarloog yéen fii ci Sénégal Buzz 221 mbokk yi ni ñu koy defee ak yéen saa ne ni ma koy waxee dootuñu ko présenté sénégalais yi ndax it taxawaay bu am solo bi nga xamante ne moom la taxawee ci réew mi aussi sénégalais xam ko bu baax a baax nag aussi ci li nga xamante ne moo di social bu am solo bi muy doxal ci réew mi muy suma frère Griff Sougou may am mbégte nag tey bu baax a baax a baax dalal ko fas yéene waxtaan ak moom ci lépp loo xamante ne rek actualité la ñeel aussi li nga xamante ne moo di réew mi ñu partager si ak moom bu baax a baax a baax mon frère mais am mbégte bu baax a baax di la nuyu le grand. asalaamaaleykum maa ngi leen nuyu di leen fay seen taxawaay ak seen teewaay di nuyu Sénégal Buzz 221. Mhm. nga xam ne ñëpp a koy seetaan àdduna ñu koy seetaan. Mhm. di nuyu tamit waa Amérique. di nuyu waa Gambie. di nuyu waa Sénégal. Mhm. di nuyu képp ki nga xamante ne soo yeewoo. Ah, yaa ngi am mm, wérgu yaram. Mm-hmm. ak ñi nekk si prison bi tamit maa ngi leen di ñaanal yàlla may leen euh, gudd fan ak wérgu yaram. Mm-hmm. yàlla gën leen fi ñu nekk. Mm-hmm. di nuyu tamit sama xarit yi nga xam ne barki démb lañ fi jógee ku si mel ne Adi maa koy gërëm di gërëm yaayam bu baax. ndax nit déplacé wu Gambie ñëw seet si la ça m'a fait plaisir. di gërëm di nuyu tamit sama xarit nga xam ne. daanaka mooy maire maire Bargny di Serigne mbay di xalifa mhm. borom Guinée di nuyu moog jabaram yëpp ak ak xaarim Amar bu baax a baax di nuyu tamit sama xarit Mohamed Amar. Mhm. ñoom ñëpp maa ngi leen di béggee di béggee Marim Sougou. Mhm. waaw borom Alabama nga xam ne vraiment ñi may tudd ñëpp euh, dañoo mën social moo tax. waaw yal na yàlla dolli sutura Pape Gora Samb ñoom ñëpp maa ngi leen nuyu bu baax a baax a baax. waaw macha allah muy kàddu nuyoo yu am solo comme ni ñu ko waxee rek saa su ne day am solo ñu nuyu ñi nga xamante ne aussi ñooy def katu lu baax yi ci réew mi ngir ñi nga xamante ne ñoo nekk ci safaat bi mën a roy ci ñoom ci lu baax loola waaye comme ni ma ko waxee rek ñu dëgmal li nga xamante ne aussi euh, mën nañ ne li ci des bëreetul muy weeru koor gi Sénégal yépp di ko wàcc ñu ñaan aussi yegg ci ak jàmm waaye bu ñu waxee koor. bëri na taxawaay yi nga xamante ne am ngeen ko ci ci social ak ndimbal gi nga xamante ne yéen a ngi koy def ci jaamu yàlla lépp rek ngir jaamoo ko yàlla euh, taxawaay boobu tey Griff ma ñëwaat ci tuuti ak yow. waaw li may taxawaay euh, euh, li may taxawaay mooy damay gis chaque dañuy roy si sunu sunu sunu mag ñeeg kilifa yi. Mm-hmm. parce su ma xoolee ku mel ne Tahirou Sarr. Mm-hmm. di borom yoof mm-hmm. mu nekkoon sunu grand nga xam ne jamonoy Chicago sport la woon. Mhm. mu nekk koo xam ne daf ñu daf ñu euh, tax tàgget. Mhm. si jaamu yàlla la ñu njëkk a tàggat. Mhm. ak nan la ñuy dimbalee doomu aadama ak na la ñuy tabaxee jumaa ak nan la tabaxee jàkka. parce que ñu bëri tamit dañoo yaakaar ne social yomb na fekk yombul. loolu xol moo koy def. te tey dañuy gis may tudd Tahirou Sarr mais xamuñu. Hmm. dañuy jàpp ne Tahirou Sarr daal xam parce que Tahirou Sarr moom moomoon jamono yooyu nga dégg Chicago Sport. bëggoon naa ñëw seen relation parce que euh, sénégalais daf leen jaaxal ah, euh, xaritoo bi am seen diggante ak looy def rek jiital ko ci tudd ci turam euh, seen relation. waaw Tahirou Sarr sama mag la. Hmm. mu nekkoon nag bëri na morom yoo suñu morom yoo xam ne. Hmm. moo leen moo moo leen jàngal lan mooy àdduna. ba ñuy ambulant am na ñoo xam ne dañu doon liggéey feneen mu jël leen indi leen. boobu Chicago Sport la woon. kon nit nit ñi dañuy jàpp ne Tahirou Sarr tey laa xamante ak moom. Mhm. ñun boobu ñun ñu ngi ambulant. Mhm. suñu musaan a xiif place am la ñuy añee. Mhm. suñu musaan a baali sax amuñu yére. dañuy ñëw jël si moom yére te duñ ko fay. mu nekk nit koo xam ne ku social. bi ku yàgg social nag. du tey ndax koo xam koo xam ay ay 97. Euh, euh, ba ba léegi. ak ñoom Takka. ñoom ñëpp kon. loolu démb la. Mhm. mu nekkoon grand bu social même yoof bi mu dëkk. Mhm. barke Serigne Fallou Mbacke mu ngi fay dimbali jeunes yoof yi. Mhm. mu ngi dimbali ay nit te kenn xamu ko. te kenn yëgu ko. di social nag di jàppale ay nit. koo koy Tahirou Sarr te ñun. dañoo roy si ñoom. Mhm. seen i tànk. Mhm. di nuyu tamit Aziz mi nekk France nga xam ne tey. Mhm. balaa droit Tahirou Sarr la. nga xam ne ba mu nekk Tahirou Sarr Tahirou Sarr bañ ko moo ne ko jugal fa nga nekk ñëw fii luñ ñu am bokk. kon genre nit ñooñu. dañ leen war a dañ leen war gën a delloo njukkal. ndax réew soo fa nekkee. di def lu baax. di def social. da ngay tax ñëw ñëw gën laa mën a fonk gën laa mën a naw. man nag si loolu dama si dox. di si ànd ak sama xarit yépp nga xamante ne tey su weeru koor jotee ku nekk da ngay génne alal bu dul jeex mm-hmm. di jox ñu dool yi mm-hmm. tey ku si mel na ñoom Adi Diagne mm-hmm. xam nga sunu yaay Awa Ñang Xaarim Amar Mohamed Amar Serigne mbay di xalifa xam nga ñooñu nga xam ne borom xol yu laab lañ Marim Sugu waxi nopp ñoom ñëpp Mm-hmm. ñoom yaa am ay dara lu ñu am génne ko pour joxe si weeru koor bi mm-hmm. parce que dañoo jot pour di dimbali suñuy askan mm-hmm. di dimbali néew yu doole yi di jàppale néew yu doole yi waaw ren nga fas yéene ko yaatal ba euh, képp koo xamante ne rek néew gi doole nga wala soxla nga ko nga gis si sa bopp waaw dama ko njëkkee si sama koñ ba pare su ma sama koñ. Ah, damay jug après. ñaan yàlla takk ko pour jàppale yenn néew doole yi. parce que yàlla moo ñu ko jagleel. mos ñu ko dafa dafa def ba ñàkk ko. dañuy def di gën a avancé di def yàlla di ñu gën mën a ndam. ñaata moodu moodu ñooy rey seen bopp su weeru jotee ñuy génn xaalis àdduna bi yëpp di génn ay ndogu di joxe. lépp mooy xol moo koy def. te ku xool ne dëkk bi dafa metti rek war ngaa jug mën a dimbali doomu aadama muy xëy di lekk wala muy xëy di naan. nga yor li nga yor nga denc ko si biir kër amul benn njariñ nañ génnee li ñu yor di ko may doomu aadama yi mhm. day tax mu duggaat mhm. mais alal soo ko yoree pare dimbali wasi doomu aadama yi mhm. mooy indi ngay feebar di am ay cancer yenn feebar yi sew sowaan yi ba génn àdduna ay nit jëriñoo xaalis bi te loolu taxawul te loolu taxawul waaw macha allah ñu koy ñaanal bu baax a baax a baax ci yoon bi nga xamante ne ci la ne yàlla na ko suñu borom taxaw bu baax a baax a baax ndax def ko lu baax dañu ko war a ñaanal bu baax ndax euh, li nga xamante ne rek mi ngi koy def te yàlla rek tax loolu dañu koy saluer bu baax a baax a baax grand euh, ci loolu bu ñu ci jugee ba tey ci situation dimbali dimbali bi ak jàmm ji nga xamante ne moom nga yéene askan wi euh, jamono ji Sénégal toll ci situation boo xamante ne ñëpp ci pression lañ nekk entre le 14 16 ak le 17 Ousmane Sonko war a wuyu ci waat naka nga jàngatee situation bi nga xamante ne moment bi moom la Sénégal di dund ci pression. waaw xam nga àdduna tey su dara xewee. ñu bëri si am am am fitna. Mm-hmm. parce que soo xoolee si parking yi ñëpp ngi génn seen oto. Mm-hmm. di dem di denc di di di nëbbu parce que. ku nekk da ngay sàmm sa alal. Mhm. te ñun ñëpp ay jeunes lañ. Mhm. te ñun jeunes yi ñu ñoo war a defar dëkk bi. Mhm. te li ñu war a defar dëkk bi mooy dañoo war si dëkk bi dëkk jàmm. parce que jàmm rek moo fi njëkk jàmm moo fi mujj. du ma ne du ma ne nit ku nekk rek waroo xeex sa indépendance mais nañ na nañ teg lépp si cadre dal. xam nga Macky Sall tamit teg lépp si cadre dal. armée bi tamit jël lépp teg si cadre dal parce que population mooy lépp. te population. kenn du xeex ak population xam nga parce que nit ku nekk soo dee homme de tenue nga sa rakk mu ngi si marché bi sa cousin mu ngi si marché bi sa mu si marché bi sa doom mu ngi si marché bi sa lépp mu ngi si marché bi kon nañu nañu xool li gën a rafet si àdduna bi rek ñu di ko teg si yoon xam nga ndax tey président bu nekk nguuram day jeex keneen ñëw nañ xool lépp ñu jaar ko si yoon bien vrai que ah Macky Sall gis naa ne mu ngi def mu mu mu ngi def mhm. xam nga mhm. Sonko tamit mu ngi xool li nga xamante ne projet yi jëmale askan bi kanam. Mhm. mu teg ko. Mhm. kon lépp lépp lépp rek nañ xool ni mu gën a rafetee rek. Mhm. ñu songee ko noonu. waaw nañ xool ni mu gën a rafetee ñu songee ko noonu waaye li nga xamante ne aussi sénégalais ñu ngi koy tiit muy. dëkk bi nga xamante ne ñu bëri dañu naan day tàq ak du tàq lan ngay wax ci loolu parce que aussi ñu ngi gis euh, ñenn ci ñoo xamante ne bokkuñ ci politique bi ñu comme ay mbër ma cité ci ay tur ku ci mel ni Papa Sow ak Zarko euh, ñu ngi leen di jiiñ ne ñoom ñooy recruter nervi yi sànq ñu ngi seetaan euh, point de presse Zarko ki seetal boppam bi nga xamante ni mu ngi koy seetal boppam ci accusation yu ngi leen di def ban ngi gis nga am ci loolu. Ah, xam nga Zarko man miinu ma ko. Mm-hmm. waaye Papa Sow sama xarit la. Mm-hmm. Euh, sama lépp la. ah añee naa këram ba taay te boobu dara dara dara demeewul nii. Mm-hmm. xam nga man gëw ma ne Papa Papa Papa ak ni ma ko xamee. dina def loolu. Sénégal nag. dafa am nit ñoo xam ne dañoo weex dunk. lu juglu dañ dañ si laaxaare. ndax tey yaakaar naa ne Papa su romboon sa magasin bu ñuy dajji. ah duñ ne kenn dañ ñaan booy Papa Sow la. fekk daa daa romb rek nuyoo dem yoonam. parce que àdduna fa am ñu mel noonu. mais góoma loolu Papa Sow ko def ndax Papa Sow xam naa ne. lii lii defaral askanam. moo ko gën a li li li yàqal askanam. xam nga te nit ku nekk tamit war ngaa sóoraale la nga xam ne tey nguur bi day jeex beneen nguur ñëw. te ku nekk war ngaa bàyyi si loolu xel. tey ana ko doon jàppale Mhm. demuñu. dem nañ Macky Sall ñëwul. Mhm. ana Abdou Diouf demul Abdoulaye Wade ñëw. Mhm. ana Macky Sall su demee keneen keneen moo koy yutu wutu. moo tax lépp loo def si àdduna rek da ngay sa ginnaaw. bu la dara jaral yenn yi si àdduna man foofu laay conseillé mais gëm naa ne tamit Papa Sow du def loolu ndax man. Euh, Zarko miinu ma ko yenn miini. xam nga mais tamit su fekkee na lépp day am daal ñoom na si na si nit ñi bàyyi xel. te xam ne nit. mën na toog fi mu toog lu xew ñu takkal ko ku fekk du moom mhm. man Papa Sow ni ma ko xamee mhm. gëm naa ne loolu du jikkoom mhm. tey mënoon nañu wax keneen sax man ah mën naa nekk mais tey su ñëwee Papa Sow damaa loolu du jikkoom xam nga ni ku nekk rek dangay ngay seedeel nit ki jikkoom xam nga man du ma seedeel nit ki leen loolu jikkoom parce que tamit nervie bi ngay recruter wala di ko jël tamit rakkam mu si marché bi papa mën na fa nekk yaay mën na fa nekk. Mhm. lu ne mën na fa nekk. ni ku nekk rek foog ngay xalaat li ngay def bu baax a baax a baax. Mhm. ndax ëllëg dara nga toog di bañ a réccu dara si àdduna. Mhm. loolu am solo. Euh, papa saw ñun xam nañ ko waaye aussi boo toogee dégg ñu jël yenn accusation yi di ko jot ci doomu aadama euh, dina xaw a jaaxal sénégalais mais aussi dañoo dem ba toll ci Sénégal boo xamante ni boo àndeek nit koo xamante ne ñoom bëgguñu ko wala nga xaritoog moom rek euh, foog ñu jël ay kàddu yu ñaaw teg ko sa kaw ban Sénégal lañ toll Griff. mais du Sénégal Sénégal dëkk ruube la. Mhm. tey maa ngi nii su ma gisoon tey ma ànd ak Tahirou saar lu ne dinañ ko wax. Mhm. mais man lijjantuma loolu man faalewu ma. Mhm. man faalewu ma. parce que man man man li ma gëm mooy tey kii ba ma koy xam. xaw ma la. koo xam 97 ba léegi kon kooku xam nga jikkoom. xam nga ni mu mel. xam nga baaxaayam xam nga jikkoom comme ni ma waxee si Papa Sow. Sénégal mooy dëkk bu nga xamante yenn nit ñi. seen xol yi setul. bu ñu la gisee nga ànd ak ministre yi ñu xalaat. Sénégal seen mhm. xol yi setul. Mhm. soo tuddee nit sax ñu jàpp ne am na lu tax nga tudd ko fekk demeewul noonu. Mhm. léegi li nga tudd nit fekk yaa koy defal teraanga. c'est vrai léegi li nga tudd nit fekk yaa koy defal. wallaay mais man parce xam nga tax. nit ki nekk nit ku nekk da ngay mën nitam. sénégalais mooy toog bañ a yéene ki jàmm ba nit ki am jàmm. xam nga te nit ki su ko yàlla baaxalee yow baaxal ko. c'est vrai su yàlla di baaxal doomu aadama yi nga bëgg koo bonal da ngay sonal sa bopp. parce que fii yàlla rek yàlla rek fi nekk. tey da ngay gis. ñu bëri yooyu nga nekk si ay situation fekk seen moromu doomu aadama ñoo leen ko teg. Mhm. ñu bëri nga nekk si ay jafe-jafe. Mhm. fekk doomu aadama moo leen yàqal jafe-jafe boobu doonu mhm. tey Sénégalais su la doon cotiser su déggoo ñu ngi cotiser diw deux millions. ñu gis compte bi am na neuf cent neuf cent mille. ñu naroon def sa dootuñu am yéene boo ne ah, ah kii de am na un million duñ ko ko defal loolu du àdduna. Amérique dañuy gis kenn koo xam ne benn femme dañ ko wane mook jabar ñi tëdd si taw bi muy taw rek amuñu fi ñu tëdd mais américain ba ñëwee ku nekk dañ dugal wan dala mhm. am nañ lu mat 6 millions de dollars si koo xam ne si mbedd mi nga doon fanaan parce dañuy social xam nañ la mooy social xam la mooy àdduna mhm. mais sénégalais su lay defal dara sax mhm. gis nañ nga tudd nit sax baa nga yor oto bu rafet sax baa nga dëkk si kër gu rafet sax su la mu waroon na yéene sax du la ko yéene te loo du àdduna lu ñaan ki la ñee du la dimbali te nit ki bul xool ki am rek nga war ko dimbali. Mhm. xoolal ki am nga dimbali ko. Mhm. xoolal ki ñàkk nga dimbali ko. Mhm. sooy xool euh, ki ki am. ba doo ko dimbali day fekk da nga ko teg bët. man sama xa na sama xarit yoo xam ne. dama leen di tudd fii xam na ñuy wax. Griff li muy def si man ñun defuñu ko si moom. te si tey laay waxee. la parce que xam nga lu war a loolu. cër bi ak respect bi xam nga am solo mooy yéene. nit ki da nga koy yéene. man ku ma yéene ma ànd ak yow ku ma yéenewul ma ànd ak sama bopp. Mm-hmm. parce que yàlla rek laa gëm gaw ma kenn ku dul suñu borom ak samay waajur. Mm-hmm. waaw nañu ubbi xol yi nangul yàlla def si. waaw yàlla ku nangul lu rek. Mm-hmm. gis nga feebar yi bëri li koy indi. nit ñi di ko jàpp seen xol yi. te mënuñu ko génne. mooy naqar bu ñuy dund seen àdduna. ñàkk nangu da da ngay gis koo xamante ne. billaahi day baax a baax a baax a baax mais doomu aadama koy teg naqar ba du génn wax. mooy mbetteel. nga jàppale nit mu toroxal la. nga jël nit ah indi ko sa bopp muy fexe nu mu la ko selee kàmb te soo xoolee ba xool adduna bi ñàkk dimbali nit sax moo gën di dimbali nit jamono ji ndax xoolal ñi ngay dimbali ëllëg ñoo lay toroxal ñi ngay dimbali ëllëg ñoo lay def lu bon ñoo lay def lu ñaaw parce que mentalité bi ñu yor la tey dañuy ànd ak yow pour xam sa biir xam sa biir suñ paree gas la suul la loolu nga fi am loolu rek a fi am muy loo xamante ne aussi rafetlu wuñu ko ci Sénégal te ñaan nañ yàlla bu baax a baax a baax ñu bàyyi xel wala képp koo xamante ne rek jàpp nga ne jikko boobu mu ngi ci yow nga changé ko te ñu yéenante aussi li nga xamante ne moo di jàmm.